amma aljanna nag wa asma'uha wa na'imuha aljanna moom itam suñu borom tudd na ko ay tur yu bari bokk na ca tur ya daaru salaam nee na mooy këru mucc nga ku fa dugg mucc nga lahum daaru salaami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kaanu ya'maluun nee na ñi doon lu baax day am nañ këru mucc fa seen borom te suñu borom day mooy seen péete mooy seen kilifa lan moo leen may loolu nee na lu baax li ñu doon jëf suratul an'am aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar bokk na ci ay turam jannaatu adnin borom bi ne waada allahu almuminina walmuminat jannatin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha wa masakina tayibatan fi jannati adan wa ridwanun min allahi akbar dalika huwa alfawzu alazim bokk na ci ay turam jannatu naim ajjanay xéewal inna alladina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min taxtihim al anhar fi jannati naim suñu borom ne ñi gëm yàlla tey jëf lu baax suñu borom dana leen gindi teg leen ci yoon wu jub ci sababu seen gëm gi tabbal leen ci aljanna yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suuf ci àjjana joo xam ne nee na lépp xéwal ay juróom-ñeenteel suratu yunus bokk na ci ay turam tuuba borom bi ne alladina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa xusnu maab tuuba tur la ci turi aljanna ñenn ñi ne garab la ci aljanna waaye daal borom bi nee na ñu jëf lu baax daal te gëm yàlla ëllëg dana leen fayee tuuba lahum wa xusnu maab nee na barab boobee tudd tuuba di delluwaay bu rafet nee na dana ko fayee ñooñu bu ëllëgee bokk na ci ay turam daarul muttaqin kërug ñi ragal yàlla wala ni'ma daarul muttaqin borom bi nee na kër googee day nga xam ne mooy kër ñu ragal yàlla nee kër la goo xam ne day gu baax la aaya fanweer suratu na bokk na ci ay turam alfirdaws su borom amanu wa amilu salihat kaanat lahum jannatul firdawsi nusula nee na ñi gëm yàlla tey jëf lu baax nee na aljannay firdaws nee na mooy seen wàccuwaay fale leen borom bi ganale bu ëllëgee bokk na ci ay turam jannatul xuld ajjana joo xam ne ku fa dëkk dootoo génn qul adalika xayrun am jannatul xuldi allati wuida almuttaquun bokk na ci ay turam alxurfa muy ay chambre ay néeg ulaika yujzawna alxurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha taxiyatan wa salaama suñ boroom ne ñi nga xam ne ñoo jëf-jëf ju baax te fekkoon ñu gëm yàlla am tawxid nee na dana leen fayee ay néeg yoo xam ne ay étage la xuraf min fawqiha xurafun mabniya tajri min taxtiha al anhar bokk na ci ay turam daarul muqaama xam ne kërug sax la alladi ahallanaa daara almuqaamati min fadlih laa yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha luxub waa aljanna yàlla ci yàlla boole buñ ca duggee bu ëllëgee dañuy wax ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moonu wàcc ci kër gii nga xam ne këru sax la ci ngëneelam ci mbaaxam ndax aljanna moom la fa ne ci ay xéewal ku ñu ko tiire woon ci say jëf doo fa yendu ku ñu ko tiire woon ci say jëf ne la li nga jëf moom la ñu calculer bootul boo fa naanee benn kaasu ndox rek bootul sa jëf yëpp jeex moo tax borom mi naan yursaqoona fiha bi gayri xisaab bi gayri xisaab kenn du ko calculer waaw fa ulaika yadxuluuna aljanna ko calculer borom bi dalay fay ba noppi nag ne la yow lii nga yeyoon ci sa jëf yi waaye nag maa la dolli lii waaw la borom bi ne inna alladina yatluuna kitaaballah wa aqaamu salaa wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli wa yazidahum nee na yàlla da leen di fay ba mat nee na yow di li nga jaamoon yàlla moom mi ngi nii lii la yeyoo ci ay jëf waaye nag wa yazidahum nag mu dolli la nag min fadlihi ci mbaaxam moo tax mu ne ahal lana daaral muqaamati min fadlihi ci ngënee la ma fu mbaaxam ci la ñu dëkkaloo ci kër googu kër googa nee na laa yamassuna fiha nasab nee na coono du la fa laal doo yëg coono wala yamassuna fiha luxub nee na dara loo xam ne naqar la itam walay naqari ak jaaxle xol coonab yaram du la fa dal coonab xol du la koo xam ne sunnul coonab yaram waaye coono ba muy daj ci xol ci jaaxle ak kooku coonab yaram sax ko gën a tudde ne ko daarul xaraar kër goo xam ne ku fa egsi nag egsi nga amatul feneen foo jëm wa inna al axirata hiya daarul xaraar leen kër googu di kërug aljanna ca àllaaxira nee na mooy kërug sax ga am naa xéewali aljanna nag suñu borom tabaraka wa taala rek moo xam nu mu toll jële nañ ci sahlum ne saab asaaidi radiallahu anhu anna rasul allahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam qaal ribaatu yawmin fi sabilillah xayrun min addunia wa ma fiha wa mawdiu sawti ahadikum min aljanna xayrun min addunia wa ma alayha warrawxatu yaruuxuha alabdu fi sabilillah aw alqadwa xayrun min addunia wa ma alayha muttafaqun alayh yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ribaatu yawmin fi sabilillah benn bés boo xam ne da nga koo génn fi sabilillah ci yoonu yàlla di garder ci frontière réewu jullit ñi ba ay yéefar duñ fa mën a jaar nga def fa benn bis rek nee na moo gën àdduna ak li ci biiram mu ne kenn ci yéen ab yaram yar ba muy dàqe aw fasam yar ba fa muy tege nee na ci aljanna place bu tuuti boobu nga xam ne fa la yar ba tege nee moo ëpp valeur àdduna ak li ci biiram wa mawdiu sawti ahadikum fil janna xayrun min ad dunya wa ma moo tax kon adduna dara lu fi jar muy xañ nit ki aljanna bu ëllëgee amu fi loo ko jënde rek perte nga bu booba ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu mu jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne qaala allahu tabaraka wa taala adattu li ibadi alsalihin ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi basar qaala abu hurayra radiallahu anhu iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun a'yun jazaan bima kaanu ya'malu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne suñu borom dafa wax ne waajal naa sama jaam yu baax yi préparal naa leen loo xam ne bët mësu koo gis parce que amul fii ci àdduna nopp mësu koo dégg mësta rot ci xolub doomu aadama mu mën koo xalaat Abu Hurayra mi doon nettali xadis bi mu ne bu leen neexee jàng leen aaya bi suñ boroom naan fala taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bi ma kaanu yamaluun mu ne kenn mënta xam li la borom bi tabaraka wa taala dencal ci ay xéewal yoo xam ne day sedd xol bu ëllëgee kenn mënu koo xam da ngay dem ba gis ko rek moo tax mu ne wa isa raayta raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira wa isaa raayta nee na soo demee ba gis aljanna foofee la fa nekk nee na nag keroog ngay gis ne xéewal dëgg dëgg dëgg dëgg ak nguur dëgg dëgg dëgg itam foofu la am borom bi tabaraka wa taala di wax ci meññetom garabi aljanna mu ne wa bashiri alladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min taxtiha al anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آية ñaar fukk juróom suratul baqara mu ne bégalal ñi gëm yàlla tey jëf lu baax bégal leen na leen suñu borom waajal na leen aljanna yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suuf nee na saa bu ñu leen wërsëgalee maanaam ñu andil leen palaat bu def fruit nee na day niroo ci meññet mi day niroo ci bët boo ko xoolee ñu ne ah lii kat moom lan doon lekk léegi waaye nee na boo ko mosee day wute càpp gi day wute qaalu hada allati rusiqna min qablu nun kat lii laa doon lekk léegi maanaam banaana bi nga lekk nga mën nga lekk banaana ba saa bu ñu andiwaat banaana da ngay ko sax man soxlaatuma ko ndax xam ne nag geen càpp geen càpp moom xam na ko waaye ca aljanna moom banaana bu ñu la andi léegi bu ñu andiwaatee nga naan ah banaana da la ñu andiwaat bu ñu ko andiwaatee boo ko mosee beneen caf ko lay sax bu bokkul bi nga lekkoon léegi fruit bi mën naa doon benn pomme bi nga lekkoon ñu andiwaat même pomme waaye boo ko mosee la bi nga lekkoon di saf du bokk ak moom la koy saf moo tax borom bi ne wa oto bi mutashabiha dañ ko andi mu nuroo ci bët waaye day wuute ci jax mu ne walahum fiha aswajun mutahara am nañ fa ay soxna yoo xam ne yu laab la doon wahum fiha xaalidun mu dellu wax ba tey ci garabi aljanna yooyu mu ne masalul jannati allati waida almuttaqun nee na misaalum aljanna mi nga xam ne moom laa dig ñi ragal yàlla aljanna nag yàlla ko ragal yàlla la ko dig kooku la yàlla dig aljanna mu ne tajri min taatiha al adhaar uqluha daaim nee na ay garabam duñu rak ba fii ci àdduna moom dañ naan waxtu wii moom du waxtu mango wala du waxtu pomme wala du waxtu banaan pour mu benn bu nekk daal am na période boo xam ne ci lay am bu dee ci aljana nag mu ne ukuluha daimun nee na me ñam wa meññeeti garab ya duñu rak mu ne wa zilluha ker ga itam moom it daim keroog garabu aljanna du déplacé wu nga fii ci aljanna adduna garab goo toog ci kerug suba gi boo fa yàggee boo toppul aw naaj fekk la ndax ker ga day topp bu dee keroog aljanna nag nee na meññet mi du rak keroog garab gi tam du topp ukuluha daimun wa zilluha mu ne tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina naar suratu raad aaya fanweer ak juróom borom bi dellu wax ba tey ci xéewali aljanna mu ne nit ñi day fii ci àdduna dañoo bëgg ay bànneex suyina linnaasi hubbu shahawaat min annisa bànneex yoo xam ne ci jigéen lañ koy wala góor jigéen di ko wut ci góor wal baniin bëgg nañ ay doom koo gis bëgg na soxna bëgg nay doom wal qanaatiir al muqaddara bëgg na ay compte banker yu fees dell min az-zahabi wal fidda yu fees ak wurus ak xaalis wala dollar ak euro bokk am ci compte yu fees dell wal xaylil musawama bëgg na ay fasinaari góor wala boog bu dee léegi mooy yu bari yu mu gaare wal an'am akub jur yow ay naga ci xaraki béyeg lu ne ay tool yu yaat wa loolu mooy adduna borom bi ne dalika mataaul xayaati dunia nee na loolu mooy bagaasu adduna wallahu indahu xusnul maab mun na kaay ma wax leen nag lu gën yooyu ngeen di wut ci adduna qul a unabbiukum bi xayrin min zalikum kaay leen ma wax leen yu gën compte bancaire yooyu lu gën oto yooyu lu gën jur googu lu gën tool yooyu ñu ne ko loolu mooy lan mu ne lilladina taqaw inda rabbihim mu ne ñi ragal yàlla am nañ fa seen boroom jannaatun tajri min tahtiha al anhaar yoo xam ne aljanna yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suufa xaalidiina fiha te dañ fay dëkk nag wa azwaajun mutahara ñu am fa ay soxna yu laab yoo xam ne duñu gis baax yéen àjjana ñoom duñu gis baax wa ridwanun min allah mu ne ànd ak nag am ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala wallahu basirun bil ibad amma yaatuwaayu aljanna suñ borom ne saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ard uiddat lil muttaqin mu ne gaaw leen njëkkante leen wuti njëggaluk suñu borom tabaraka wa taala wuti leen aljana joo xam ne yaatuwaayam tol na ne asamaan ak suuf maanaam nit ki la muy am ci aljana këram dana tol ne adduna arduha as-samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin loolu boo ko misaal bi nit ki mën na ne loolu nu muy mën a ame waaye ki ne ci biiru yaayam ku ku yëgoon foofu fàttalikoon foofu ni mu xate buñ la woon léegi soo génnee néeg bii nga ne muy biir boobu da am ay ay junniy junniy junniy néeg yoo xam ne dana toll ne moom bootul danaan loolu fu mu mën a am waaye ku génn ci àdduna espace bii nuy xool rek ñaata biir ñaata biir a ci xaj ah nga toog sa néeg bu yaatoo yaatu sa kër gu yaatoo yaatoo yaatu boo seetee fa nga génne muy biir ba nga xam ne fa nga dëkkoon ñu la fii kat boo fi génnee yaa ngi gëm jëm fu yaatoo yaatoo yaatu kon danga xam ne kon la la génne ci xat-xat boobu andi la ci yaatu yaatu bi mën na laa génne waat ci xat-xatu àdduna bi yóbbu la ci barab bu ko gën a yaatu te mooy aljanna ñu jëlee ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna fil jannati la sajara yasiru raakibu fi zilliha miata aamin la yaqta'uha rawahul buxaari yonente bi alayhi salatu ne am na ci aljanna garab goo xam ne nee na nit dana war di dox ci ker gi téeméeri at keru ker gi te keru garab gi du jeex genn keru garabu aljanna nga war ci saw fas fas wu jàmbaare wu mën a daw ngay dox doxu téeméeri at ngay dox doo génn ker kon aljanna ab yaatuwaayam borom bi tabaraka wa taala rek nga xam nu mu toll yonente bi alayhi salaatu wasalaam laajoon nañ ko aljanna tabax ya fa nekk nu ñu ko tabaxe ñu ne ko ma binauha lan mooy tabaxi aljanna qaala labinatun min dahab wa labinatun min fidda nee na birig ci wurus birig ci xaalis te wurus wa nag tur rek la bokk ak wurus yi or booba tur rek la bokk ak or bii ndax aljanna luñ la fi wax ci àdduna rek tur rek lañ bokk pour nga mën koo xam waaye wuute nañu lool mu ne kon aljanna noonu lañ ko tabaxee birigu wurus birigu xaalis mu ne milaatuhal miskul asfar xasbaauhal yaqut wal lu'lu wa tar wa turbatuhal wars wa safaraan man yadxuluha yaxludu laa yamuut wa yanamu laa yey as laa yabla shababuhum wala tuxarriqu thiyaabuhum mu ne suufu ruum ba maanaam lañ ko karlee nee na al yaaquut lay doon wal lu'lu yaaquut al lu'lu per la yoo xam ne yu rafet a rafet la moom la ñuy wax jamaa yu rafet la yoo xam ne soo ko xoolee dangay gis sa bopp mu ne kër googee dañ ko fa duggu da nga fay dëkk bu dootoo faatu te nee na dangay ngay xéewlu ca xéewal ga doo tàggoog moom mukk nee na ku fa dugg itam sag ndaw du ràpp maanaam ni nga nekkee ndaw doo màggat nee na seeni yére itam du ràpp du xotti ko du màggat borom bi tabaraka wa ba tey melal waa aljanna nee na aljana ku fay dugg ndax doomu aadama dafa am lu ñu ko bindaale loo xam ne feeg tàggoowut ak moom xéewal gu mën a nekk boo wutul xéewal nga du neex ci moom mooy li muy soxare ci biir xolam di soxar xam nga leen nga gis ku ne ci xéewal goo xam ne waaye gis ku ko ëppale moom gisatul lim am moom waaw gisatul lim am ma ngay soxarakee rek naan man yoruma dara xoola kii li mu yor loolu mooy alxill alxill aw tàngoor la wane ci xol woo xam ne yàlla da koo def ci doomu aadama fii ci àdduna ndax nag dañ koo soxla ndax tàngoor woowu su amul woon kon ab jullit du mën a xeex ku bi yéefar kon doo mën a rey bi yéefar doo mën a mere ko def lu naqar yàlla xel boobu mooy tax ngay mën a bë mere nit waaye nag dañuy moo tax ñuy ñaan ne tàngoor woowu nga xam ne mooy tax ñuy bañe ak di mere ak di iñaan yàlla buñ ko jëmale ci ku gëm yàlla moom ngay jàng ci alquran wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu gis nga kon xel bi mi ngi fi waaye nag bumu jëm ci lilladina amanu waaw wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu xel boobu nag pour bëgg aljana neex nag ñuy dugg dañ koy dindi nag waaw xam ne dootoo mën a iñaan doo mën a ñee dara du la mën a naqari aljana li muy neex rek soo fa duggoon te am lu lay naqari wala am koy ñee wala koy iñaane xéewal ga du neex moo tax borom bi ne wa nazana wa nazana maa fi sudurihim min xillin gis nga nee na dama koy jindi damay dindi li nekkoon ci seen biir xol yi ci tàngooru mbañeel woowu léegi nag ixwaanan ñëpp nekk ay bokk mënatoo noonu kenn waaw parce que àjjana yéefar booy noonu néew ña fa nekk ñëpp ñu baax lañ àjjana koo fa gis rek da nga koo war a bëgg fii ci àdduna nag waroo bëgg ñëpp am na ñoo war a bëgg am na ñoo war a bañ moo tax ñu defal la jumtukaay bi bañe appareil bi bañe ñu montel la ko waaw mooy xel boobu waaw waaye dafa xel ba bu mu bañ ko baax nag bu bañee ko baax rek nga am problème waaw moo tax ñi di ko ñaan dañoo tax di ñaan yàlla yàlla boo nu bañ loo ko baax parce que boo bañee ko baax da ngay li nga koy yéene ci musiba du ko dal li nga koy yéene ci musiba du ko dal da ngay gis rek affaire am di gën a baax sa xol di gën a tàng yow ndax yàlla moo koy aar yàlla koy wërsëgal ku ragal yàlla la koy jaamu yàlla la nga bëgg mu al ko du al su ko defee nag yow ngay am problème nag fu ne nga dugg ci di weex leeg lu ne nga joxe ko ci àll bi di ko liggéey ak di ko jibat fekk yow lépp day del ci yow ndax inna allaha yudafiu an alladina amanu yàlla nee na maay dépendre maay aar ku gëm yàlla ku gëm yàlla maa ko protéger maa ko aar kooku nag kon bëgg ko rek mooy xéwal moo tax ñu di ko ñaan ñaan googu lu bat di ñaan la wala si na jaa'u min baadihim yaquluun rabbana xfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ay ñuy suratul xasr mat nay ñaan lool neen bu dee ci aljana nag nee day génn xel boobu wa nasaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilin nee na ñëpp nekk ay bokk tëdd ci seeni lal laa yamassuhum fiha nasab nee na duñ fa am coono aljana amul coono wa ma hum minha bi muxrajin te nee na kenn du leen génne suratul xijr aaya ñeent fukk ak juróom-ñett ñu jële ci jaabir qaala samitu nabiya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ahla aljannati yakuluuna fiha mu ne waa aljanna dañuy lekk ci biir aljanna yahood yi dañoo mës a ñëw di ko laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko waaw ndax waa aljanna danañ lekk wala ndax danañ naan mu ne leen danañ lekk danañ naan ñu ne ko ah kon dañuy dem wan kon mu ne leen déedéet yaakuluuna fiha wa yasrabuun wala yatfuluun wala yabooluun wala yataxawatuun wala yamtaqituun mu ne leen dañuy lekk dañuy naan waaye nee duñu tofli duñu am ay lor yu ñuy tofli nee na duñu tuur ndox nee na duñu dem wanag nee na duñu am ay baqate yu ñuy ñamdu ñu ne ko waaw comment baanu saam ñu ne ko nag ñam bi lekk nag anamu qaala jusaaun wa rashun ka rashil misk a tasbiha wa tahmid kama tulhamoona nafa mu ne ñam woowu jeexitam la cay waroon a génn ci ñoom nee na ni aw ñaq di génn ci yow nee na loolu lay génn ci ñoom te muy génn nee na day mel xetu misk misk mooy parfum bi gën a neex ci parfum yi nee na jeexiti ñam woowu noonu lay génn dañuy jekk-jekk rek di jëkk aw ñaq muy génn noonu fekk loolu mooy li waroon a génn ci ñoom waaye duñ soxla wuñ ay cabine wala ay wanag yooyu mu ne ak tasbih wa tahmid muy sàbbaal suñu borom ak sant ko nee na dañ leen dañ ko dañ leen ko sax ñu di ko def te duñ ko yëg sax comme ni ngeen di noyee xam nga noyyi moom liir bi bu juddoo rek sax kenn du ko jàngal nu muy noyee bu juddoo rek tàmbali naa noyyi nee na bu boobaa tasbih ak tasbih ni ngeen di sante suñu borom ak di ko sàbbaal noonu lay mel fu ngeen tollu yéen a ngi ci wa aljanna itam alquran melal na seeni yére ya ñuy sol borom bi ne wa yalbasuuna siyaaban xudran min sundusin wa istabraq muttakiina fiha ala al araik nicma sawaabu wa xasunat murtafaqa suratul kahf mu ne dañuy sol ay yére xudran yu nëbëx naat yu rafet yoo xam ne nee na ci sooy bi gën a foor mooy sundus nee na ci lañ koy liggéey ak istabraq istabraq mooy sooy bu woyof bi nga xam ne mooy rafetal ci kaw wañu sooy yu rafet yooyu nga xam ne moom la ñuy rafetale baati bu bu yeeg yooyu nee yu mel noonu la ñuy sol yére yu rafet lay doon nee na sóoru na ci seeni canapé mu ne ni'ma thawaabu wa hasunat murtafaqa su ko defee nag ñu sóonu nag naan hal thuyibal kuffaaru ma kaanu yafalun waaw ñuy waxtaan nag ñoom waa aljanna naan waaw ndax waaw ndax yéefar yi fay nañ leen lañ doon def di ko laaj hal thuyibal kuffaaru ma kaanu yafalun borom bi tabaraka wa taala ne aljanna ku fa dugg doo xiif xiif bu lay sol a ñam bi ñuy lekk bànneex bi rek lañu la may xiifuñu mais neex xam nga ñam boo koy lekk day neex day neex lekkuñu ko ngir xiif mais dañuy lekk rek ngir bànneexu ci neexaay bi ci seen jimiñ waaw parce que aljanna ba fa suñu borom tabaraka wa taala di dugal aadama daf ne ko kaay dugg ci kër goo xam ne allah tajua fiha wala taara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha nga ñeent yooyu rek mooy sonal doomu aadama ci àdduna aljoo wut loo lekk taara mu ne ko doo rafle wut loo sol laa tasmaw doo mar wut loo naan laa sardaxaa naaj du la tàng wut foo dëkk àjjana moom adduna moom yëpp dafay ne xiif dafay am rafle dafay am mar dafay am naaj tàng la dafay am boo wutul naaj bi naaj bi ngay yenn boo loo naan doo am boo wutul loo sol da rafle boo wutul loo lekk da ngay xiif doomu aadama daa nekk course bi yëpp weesuwul yii yi aada aajo yi la ñuy jéem a faj mu ne ko nag àjjana moom allah tajoo a fiiha doo fa xiif wala taara boo xoolee benn bu ne ni mu ko booleeg ba ca def xiif la booleeg rafle xiif la booleeg rafle ku la gën a rafle moo lay gën a yëgu xiif ku la gën a rafle moo lay gën a yëg ab xiif xam nga bu sedd bi ñëwee bokk na ci lii aar nit ki ci sedd bi muy sol yére yu diis bañ a rafle waaye nag di lekk bu baax itam waaw di lekk bu baax waaye boo doon lekk loo lekk lekk lekk te sedd bi amoo loo soli da ngay xiifaat fi saasi da ngay xiifaat waaw moo tax mu boole xiif ak rafle boole mar ak tàng mar ak tàngaay bi ñooy ànd moom itam naaj bi su tàngee loo naan naan naan te fi nga toog tàng da ngay maraat léegi waaw loo naan naan naan te toogoo ci place bu féex bu sedd léegi nga maraat daal di naanal moo tax benn bu ne mu boole koog bi mu bi mooy andi aw mar waaye raf lay mooy andi ab xiif mu ne ci aljanna nag ña fa nekk dañ leen di rendre ay service maanaam day am ñu fay nekk di leen liggéeyal mu ne yutaafu alayhim bi ka'sin min ma'in am na fa xale yoo xam ne suñu borom da leen a bind am na sax ñu wax ne ñooy ñooy ñooy ñooy atfaalul musrikin ci yenn wax yi xam nga atfaalul musrikin maanaam doomi yéefar yi yi nga xam ne màgguñu borom xam-xam yi dañ cee wax wax ju baree baree bari ci fu ñuy mujj fu ñuy mujj ndax dañuy dem safara wala duñ fa dem ba juróom-ñeenti wax ñëw na ci waaye wax bi ci gën a wér nag mooy li yonente bi alayhi salaatu ne dañ leen di nattu borom bi tabaraka wa taala day taal aw safara safara bu yanj woo leen ñoom ñoom ñëpp du ñoom dong nag xale yeeg ñi nga xam ne dañoo dofoo nag yooyu yëpp nga xam ne amuñu woon ay xel suñu borom day taal aw safara dugguloo leen ci jox leen ndigal ne leen soobu leen ci sabara bi ku soobu rek fekk ko muy aljana ku soobu ci sabara bi rek def ndigalul borom bi tabaraka wa taala booy dugg rek muy sedd guy nekk aljana boo bañee nag mu xam ne yow kon ci adduna it boo màggoon buñ la digalee da ngay bañ yóbbu la sabara waaw ndax digalul yàlla moom na ko war def na ko maa kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula nee na du mbugal kenn li feegi yebalul ci yow ndaw ñoom nag ndaw lañ yebal ci ñoom boobaa mooy loolu loolu loolu benn la ci wax yi te mooy bi borom xam-xam yi gën a dëgëral am ñu ne ñooy doon serviteurs yi nga xam ne ñooy ne ci biir aljanna di servi waaye lu mën a xew daal aljanna moom ay xale nga fa wayatoofu alayhim xilmaan xilmaan ay xale nee na ñooy wër di joxe naan yi di joxe ñam yi ñi nga xam ne ñooy waa aljanna moo rabbi ne yutaafu alayhim bi ka'sin min ma'in nee na dañuy wër di leen servi kaas yoo xam ne dañ ko xel li mu fees dell bàyyi ko ci dexi aljanna yi bayda nee na day weex tàll lazzatin lisharibin nee na day neex ci ki koy naan maanaam sàngara aljanna aljanna am na safar sàngara waaye sàngara boobu nag bokkul ak bii bokkul ak bii borom bi ne laa fiha xawlun wala hum anha yunzafun nee na sàngara boo xam du yóbbum xel nee na du yóbbum xel comme sàngara yii ni muy yóbbum xel sàngara booba nag la ñuy wër di servi ci biir aljanna kon tur bi rek lañ bokk wa anhaarun min xamrin dex yoo xam ne dexi sàngara la xam day neex ci ki koy naan waaye nag du yóbbu am xelam du ko tàggale ak tàggoom itam mu ne muttakiina fiha yad'uuna fiha bi faakihatin kasiratin wa sharab nee na dañuy sóoru nag ci biir aljanna nee na di laaj xeetu fur bu leen neex ñu laaj xeetu naan bu leen neex itam ñu laaj mu ne wa indahum qaasiraatu tarfi atrab nee na am ay soxna yoo xam ne seeni bët ci seen jëkkër lañ ko yamale ñu xool keneen xaasiraatu sarf jigéen bokk na ci li ñu koy tagge mu gàttal bëtam yamale ko ci borom këram rek ci lim am mu doy ko sëkk jëmmam mu doy ko sëkk du xool keneen jigéen i àjjana yi loolu la leen borom bi tagge xaasiraatu sarf seen bët dafa yem képp ci seen borom kër gis ñu keneen atraab te nee ak maas lañu goo xam ne aas ba ñu toll duñu ko weesu benn yoon borom bi dellu melal ne laa yazooqoona fiiha al mawta nee na aljanna kenn du fa mos dee illa al mawtatal lu may déggu jëkk ga te mosoon nañ ko dee moom benn yoon la nit di dee yoon la nit di dee te mooy li lay jëlee adduna yóbbu la alaxira googu dee su xasee am rek geneen dee amatul ka nekk safara du dee ka nekk biir aljana itam du dee amma dex ya nga xam ne nag moo nekk aljanna suñu borom ne masalul jannati allati wa'ida al muttaquun mu ne misaalum ajjana mi ma dig ñi ragal yàlla fiiha anhaar min ma gayri asin nee na dexi ndox nga fa yoo xam ne ndox moo xam ne mu set wecc la nee na ndox yi dafa nëx dañ koy ba sonn te sax du tee mu def ay yëf ndox la mu set wecc ne nee na dara nekku ci la wa anhaarun min laban lam yataxayar taamu nee na dex yoo xam ne soow la yoo xam ne caf ga nga soppikuwul du forox ba soow yi léeg-léeg nga naan ko mu wax xat soow yi mooy dëgg dëgg léeg-léeg boo ko naanee day wex boo ko suukarul bootul doo ko mën a naan wa anhaarun min xamrin lazzatin lisharibin mu ne dex yoo xam ne sàngara la day neex ci koy naan wa anhaarun min asalin musaffa dex yoo xam ne nee na lem la goo xam ne dañ koo segg doo ko naan am dara looy daj ci sa gi moom lem googu mu ne walahum fiha min kulli samarat mu ne nag lépp luy xeetu meññat rek dañ ko fay am ànd nag nag wa maxfiratun min rabbihim nag njëggalug suñu borom tabaraka wa taala mu ne waa kooku mën naa yem ak kaman huwa xaalisun fi naar ki am lii ndax mën naa yem ak ka nga xam ne moom ma nga biir safara wa suqoo maa an xamiman ñu jox ko ndox mu tàng jër fa qad saa amaahum nee na ndox dagg seeni mbàq mu ne ndax ne ci xéewalug aljana gee di naan ca dex yee ndax yem na ak kii mbir suñu borom tabaraka wa taala melal xéewali aljana yi melal gu yaatu suratu rahman suratu rahman ku fa dem suratu waaqia da nga gis mu melal aljana bu baax a baax mu ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannatan nee na koo xam ne ragaloon nga taxawaayu sa borom yaa ngi koy bàyyi xel tiit bis bu ñu la taxawalee ci kanamu yàlla nee na da nga am ñaari aljana fawaata afnaan nee na aljana yoo xam ne garab ya dañoo yor ay banqaas yu yaatu fa bi ayi alaai rabbikuma tukadibaan mu ne ban ci xéewali yàlla yi moom ngeen di wedd fiihima aynaani tajriyaat mu ne ñaari dex ñaari bëti ndox yuy daw ñoo fay nekk fiihima min kulli fakihatin zawjaan nee na bépp fruit da nga ci am ñaari xeet yu bokkut fruit bu ne ci am ñaari peer mu muttakiina ala furushin nag nee na ñu tëdd ci seen lal seeni i matlaa bataa inuha min istibraq nee na matlaa ya la ko sole ca biir nee na sooy la sooy la bu dëgër boo xam ne matlaa yi dafay dafay neex boo ci tëddee mu ne wajanal jannatayni daanin mu ne meññetum ñaari tool yooyu dafa jege maanaam garabu aljanna aajowul taxaw di wat di yóotu boo toogee am na meññet yu dend ak yow nga wat boo taxawee am na yu dend ak yow foo toll rek am na yu dend moom la naa xutuufuhaa daaniya xutuufuhaa meññatum àjjana watt garab ga nee na lu lay jege lay mu ne fii hinna xaasiratu tar gis nga mu ne ñu am fa nag jigéen ñoo xam ne ñu gatal seen bët la ñuy doon lam yat miskunna insun qablahum wala jaan jigéen ñoo xam ne nee na nit mësu leen a laal soxna yi àjjana ya nee na yow yaa yow lañ ci doon say soxna kenn mësu la caa jiitu ka annahunna al yaaquutu wal marjaan nee na seen taar dañoo mel nañ yaaxuut wala marjaan maanaam mel nañ jamaa per yu leer yooyu xam ne yonente bi alei salatu wasalaam nee na jigéeni aljana yi maanaam nee na danañ sol téeméeri yéere bu ñu ko tegale woon nee na seen leeraayu tànk ba nee na day day bënn yéere yooyu ba da ngay seen leeraayu tànk ba ca biir mu ne hal jasaul ihsaani illa al ihsaan mu ne ndax nag ku defoon lu rafet ci àdduna mu ne ndax yeeyoo nga lu dul ñu fay la fay gu rafet ci ñu gannaaw bu ñaari àjjana yooyu jàllee nag mu yi gën a kawe mu ne wa min duunihimaa nag jannataan mu nag am na yeneen ñaari àjjana yu yées yii yu eggul te yee nag waaw àjjana nag ay daraja la ñëpp tolloowuñu mu ne mudhaammataan àjjana yoo xam ne seen xobi garab ya dañoo werta werta werta ba mel sax dañoo ñuul xam nga garab su naatee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xobi garab yi wertaay bi day mujj mel ne dafa ñuul mooy mudhaammataan mu ne fiihimaa aynaani naddaxatan xam nga fee dane woon fii ma ay naa ni tajriyaan dex guy daw dañuy daw fii nag naddaxataan dañuy fuur di ball mais duñ jógee fu ñu ne comme seedoo yi ngay gis nga xam ne ndox mi day wàcc di yéegaat dem mais nag ban demul fenn bokku la nag koo xam ne daa yor dex koo xam ne day daw di dem kon xam nga ñee ñoo ëpp ñoo ëppale fii ma ay naa ni tajriyaan ñee seedug dex day daw ñii nag fii ma ay naa ni naddaxataan yii nag seedug dex moom fi mu nekk ci lay balle rek mais déplacé mu ne fiihima xam nga ñee daf ne fiihima min kulli faakihatin zawjaan ñii mu ne fiihima faakihatun wa naxlun wa rummaan i tool loolu wuñ kon ñii moom dane xeetu fruit bu ne am nañ ko ñii rek dafa tudd yi ñuy am wa naxlun wa rummaan dañ am tàndarma dañ am rummaan mu ne fiihinna xayraatun xisaan xóorun maqtuuraatun fil xiyaam dañ am jigéen yoo xam ne dañ leen a yamale ca xayma ya xam nga ñee dane xaasiraat tarfi ñoom ñoo yamale seen bët ñii nag dañ leen a yemale maanaam ku leen génne woon ñu xool keneen waaye dañ leen a téye waaw ñii deuxième aljana bi ñi ci ne ñoom seen i jigéen dañ leen a tëj maanaam buñ génnoon dootul xool ñee nag ñañ ne ci première aljana nag seen i jigéen ñoom ñoo yemale seeni i bët xaasiraatu tarfi la ñi muy maqsuraat waaw bee ismu faa'il la bi ismu maf'ul kii nag moo ko defal boppam kii dañ ko ko def maqsuraatun fil xiyaar dañ leen a yemale ca xayma yeeg duñ génn ñoom it lam yasmit lam yasmit hunna insun qablahum wala jaan nee na kenn mës na seq ak ñoom mu ne muttakiina ala rafrafin xudrin wa abqariyin xisaan nee na ñu daal di sóolu ci seen i njoowaan xam nga ñee ay lan la waxoon ñi nag ay njoowaan lañ yor nee na yu rafet yoo xam ne ay tappi la ñu lal ca suuf nee na mooy wa abqariyin xisaan ca la ñuy sóolu mu ne tabaraka smu rabbik dil jalali wal ikram yooyu yëpp kon ay xéewal la yoo xam ne borom bi daf koy melal aljanna ngir jaam bi xemmem ko mën a góorgóorlu wut lu ko ko may bu dee ci suratul euh, waaqia mu ne wa saabiquuna saabiquun xam nga nee na woon nit ñi ñetti xaaj lañuy ñuy seddle wa kuntum azwajan salaasa ne na bu yowmal qiyaam taxawee da ngeen nekk ñetti catégorie fa ashaabul maymana ma ashaabul maymana waa droite ñii de ci wetu ndeyjoor ci ndeyjooru aras foofu la ñuy wa ashabul mas'ama ma ashabul mas'ama ak ñi nekk ci càmmooñu araf foofu la ñuy féete ak nag wa saabiquuna saabiquun nag ñi nga xam ne moom nekkuñu droite nekkuñu gauche waaye ca kanam la ñu ne moom ca kanam la ñu ne ñoo jiitu jiitu jiitu ndax loolu la borom bi wax nee na summa awrasna alkitaba alladina stafayna min ibadina li nafsi nee na téere bi jox naa ko jaam ñi am na ci ko tooñ boppam koo xam ne toppul li alquran wax fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid am na ku ne ci diggante bi léeg-léeg mu def al li alquran wax léeg-léeg mu mooy waaw sama kaas gépp foofu lañ nekk muqtasid waaw dañuy jaxase rek xalatoo amalan salihan wa axara sayian waaw ñuy tuub mu ne nag wa minhum saabixun bil xayraat nag am na ci yoo xam ne dañoo fëx rek nag wuti lu baax moom gestutul lu bañ lépp lañ ne lu baax la rek ñu wuti ko te la bor la la bor waxoon saabiqu la waxoon saabiqu rawante leen ñooñu nag mooy saabiquun ak saabiquun mu ne ulaika almuqarrabuun fi jannati naim ñooñu nag zullatun min a awalin ñu jëkk ña de bari na nañ ca lool waaye wa xalilun min al axirin ñu mujj ñu bari lewuñ ci de groupe bu fort boobu nee na ñu jëkk ña ci la ëppee xam ngeen ne première catégorie bii la ca saxaaba ya am ñun xam nga ne sunu classe bi duñ ko ci am génération sunu génération bi duñ ko ci am moo tax ne yonente bi ne woon xayrul xuruuni qarni summa lasina yaloonahum summa lasina yal maanaam ñu baax mbooloom néewul ne ku baax du amaat gannaawam waaye ku baax baree ni mu baree woon ci jamonoom mënatoo am jamono joo xam ne ñu baax danañ baree noonu moo tax mu ne zullatun min al awalin mbooloo mu bari ca ñu jëkk ñoom bokk nañ ci saabiquuna saabiquun waaye wa xalilun min al axirin ñu néew a néew ñu mujj ñi ñooy bokk ci saabiquuna saabiquun mu ne ñooñu nag ala sururin mawduna ñu nga tëdd ci ay lal yoo xam ne dañ koo rab muttakiina alayha mutaqabiliin nee na ña nga ca sóonu nag jàkkaarloo yatuufu alayhim wildaanun muxalladuun nee na ay xale yoo xam ne nañu mel rek la mel duñu màggat benn yoon nee na ñu di leen service bi akwaabin wa abaariq nee na yor ay kaas ak ay baraada wa kaasin min maayin laa yusaddaxuuna anha nee na naan googu ku wa naan sa bopp du métti wa faakihatin mimma yataxayaruun nee na fur wi bi nga xam ne moom nga bu ñu la andee plateau fruit bi lépp ciy ne yow yaay tànn rek bi nga soxla nga jël wa faakihatin mimma yataxayaroon wa laxmi tayrin ak yàpp picc mimma yastahoon yàpp picc yàpp picc nag ganaar rek lépp xam nga fii sax ganaar lañ gën a bëgg waaw ganaar picc la moo tax mu ne wa laxmi tayrin yàpp picc mimma yastahoon wa nga bëgg wa nga bëgg moom lañ lay andi wa xuurun ayn ak nag ay jongama yu rafet nee na ka am daali lu'lu'il maknuun loolu nag lu ko waral jazaan bi ma kaanu yaamaluun nee na borom bi fayee leen ko liñ doon def nee na laa yasmauna fiha laxwan la ca gën a tee neex nee na doo fa dégg benn buumi benn wax bu amul njariñ doo ko fa dégg am nga bii ci àdduna bokk na ci li gën a seeni nit ñi wax yooyu dégg yu amul njariñ doo fa dégg waxi neen wala tasiman doo fa dégg wax juy waral bakkaar illa qiilan salaaman salaama nee na loolu rek ngay dégg aljana daal soo dégg koy wax salaaman salaama rek loolu ngay dégg kon loolu ñooy ashaabu ñooy saabixoon ak saabiqoon mu ñëw nag ci ashaabul yamin ñoom lu ñuy am mu ne wa asxaabul yamini ma asxaabul yamin mooy deuxième catégorie bi bee moom mooy ñi gën a kawe moom yonent yeeg ñu baax ñi ñoom ci première catégorie boobu la ñu nekk ñii nag mu ne fii sidrin maxduus ñi ngi ci ker gu sedd goo xam ne ker gu déem la goo xam ne dañoo damm dégg maxduus mooy xam nga déem day am i dëkk waaye ne ne na garab déemu aljana googu dégg dañ koo damm fa dégg waroon ne meññata fa nekk wa talxin manduut ak cëgg yoo xam ne dafa meññ lool wa zillin mamduud ak ker goo xam ne dafa talli wa maa in maskuub ak ndox muñ lay xellil wa fakihatin kasira ak furwe yu bare bare bare laa maqtuatin wala mamnua nee na du waddal boppam ndax su ma na naa mën naa yàqu furwe ajjana du waddal boppam yaa koy wat waaye nee na soo koy wat it du jafee wat sooy laal bu yu dag moo tax laa maqtua waaye wala mamnua laa maqtoo fekkul ñu dagg ko waaye wala mam na kenn tëre wala dagg gi itam doo fa nekk di xëcc muy jafe ngay wuti paakaaka déedéet booy laal rek muy dagg waaye feeg laaloo koy nag du dagg ndax bu daggee rek mën na faa yàq yoo xam ne yu kawe la mu ne inna ansha'nahu na insha'a mu ne jigéen ña jigéen ñi aljana yi jigéen ñi suñu demee aljanna yàlla da leen di bindaat xam nga jigéen moom li mu gën a bëgg mooy nekk ndaw nekk ndaw jigéen moom boo ne ko yaa ngi màggat rek moom adduna tukki na at ko waaw màggat lay ba a dégg lu mage mage mage rek ne ko yow nuruwoo mag waaw moo tax borom ne inna anshanahunna inshaa dama leen di sosaat moo tax yonente bi alei salatu wasalaam euh, ni daan kafe moom daana kaf waaye dëgg rek la daan wax benn màggat dafa mës a ñëw ne ko daal ñaanal ma ma dem aljana màggat bu jigéen mu ne ko ah màggat dem aljana màggat may jooy wane gannaaw mu ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko xanaa jàngoo inna ansha'nahunna insha nii nga mel màggate nii doo demee nii aljanna yàlla dalay bindaat fasaat la nga nekk ab jànq noonu ngay demee aljanna mu ne fa ja'alnahunna abkaaran dama leen def ay jànq uruban atraban ñu nekk ay maat parce que jigéen ñi bokk na ci li koy déranger te àjjana ko fa ne bëgguñu ko la déranger bëgguñu ko am lu da naqari moo tax jigéen bokk na ci li koy déranger mu gis ku ko gën a ndawee waaw bu toiletto ba nekk fa moo ma moo tax aljana ñoom ñëppay tolloo uruban atraban ñoom ñëppay tolloo benn af waaw doo fa gis koo xam ne yaa moo yaa ko gën a nekk mag wala moo la gën a nekk mag ñoom ñëpp a tolloo benn af maanaam kuñ naan fa jàng xale yu ndaw yi jigéen yi bu ñu gisee kuy naan xoolee maire bi di def nangam maire bi toilette ba defe ne moo ci ne mais borom bi xale jël ko ci xool leen maire bi waaw bu ko defee loolu du ko neex moo moom bëggula doonu mbeer am jàq la bëgg a doon loolu nag moo tax boobaa borom bi ne uruban atraba genn maas la ñuy doon li ashaabil yamin mu ne loolu nag ashaabul yamin ñoo ko am mu ne ashaabul yamin nag sullatun min al awalin wa zullatun min al axirin ñu jëkk ña am nañ ci lu bari ñu mujj yi am nañ ci lu bari moom gis nga boobu moom moom ñu jëkk ña bari la dañ ko ñu mujj bari la day seen catégorie bi moom moom mën naa bari ci noonu mën nañ cee bari la waaye bu jëkk ba rek nee na moom yow dugg ca yombut de première catégorie bi saabiquuna saabiquun kooku zullatun min al awalin wa xalilun min al axirin bii nag zullatun min al awalin wa zullatun min al axirin mu doog a ñëw nag ci asxaabu simaal nag moo ca sës waaye boobu weesoon nañ ko te ma ñëwoon ne waaye ñooy waa safara beneen saar boo xam ne itam suñu boroom melal na fa aljanna ci melokaan bu bari mooy suratul insaan moom it sore bi nag gis mu naan innal abraara yasrabuuna min ka'sin kaana misaajuha kaafuura nee na ñu baax ñi danañ naan ci kaas boo xam ne lañ ko raxee mooy kaafuur kaafuur xet gu neex la yor aynan yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira nee na dex la goo xam ne jaami yàlla yi ñoo cay naan ñoo koy ballal yaa koy yaa koy yaa koy yaa koy ubbil sa bopp mu ne jaam yooyu nag li leen may loolu yuufuuna bi nadr wa yaqaafuuna yawman kaana sarruhu mustatira dañ daan matal nidër te dañ daan ragal bis boo xam ne aw ayam dafa tasaaroo mu yowmal qiyaam wa yutimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira nee na dañ daan jox ñam ku ko soxla ab miskin ñu yët ko ñam mais dañ woo invitation boo xam ne ñi nga woo ñëpp soxla wuñ ko xam nga ala xubbi ci am solo la bari na koy joxe ñam woo xam ne ñi ko jox soxla wuñ ko togg say ne ni nga ko amee lañ ko amee ah loolu ki nga ko woo daanaka sax da nga ko xaw a danaan te bàyyi woon ko mu reeru reeru këram sax bootul moo ko dàqal invitation bi nga ko invité te bàyyi ne miskin yi ci kon bi nag nga xam ne dañ koo soxla invité wala ah moo tax mu ne wuy taximoon a taama ala hubbihi ñam boo koy jox woo ci koo xam ne lii nga ko jox palaat bii nga ko jox dana toog weer bu ko mos waaw nga woo ko ci palaat bu mel noonu waaye palaat bi ñi nga ci woo ñëpp moom lañ bàyyi seen kër kooku jëru ko kooku adduna rek la waaye woo ko ñi ko soxla lool kooku ku waaye yàlla tuddal na la ñooña nee na miskinan miskin bi soxla na palaat boobu palaat boobu nga xam ne lu seer la wa yatiman ab jirim soxla na ko wa asir prisonnier bi na ca kaso ba tam te xëy na nekkul ku am ñu koy toppatoo di ko yët ñam wa gën moom itam soxla na ko nga togg ñam yu baax yët ko prison yóbbu ko ca prison ba dana am ñu ko xew lool lool ndax am na ñoo xam ne ñam wa foofa dong la ñuy te xam ngeen ne ñam woo na mu demee doy na wax kon nga toggoon sa ñam wu am solo yóbbu ko fa loola bu boobaa borom bi nee na bokk na ci lii maye aljanna bu ëllëgee te soo leen ko yëtee nag nga ne leen innama dama leen koo jox dong ngir yàlla laa nuridu minkum jazaan wala shukura bëgguma bu ngeen génnee ngeen fay ma bëgguma ngeen sant ma tax waaw ngeen naan jërëjëf di ma tagg sax bëggu soxla ma ko ci ndax lan inna naqaafu min rabbina yawman abuusan xamtariya damaa ragal bis bu ñàng boo xam ne mi ngi ci suñu kanam borom bi ne ñi def loolu nag fa waqaahum llahu sharra zalika al yawm borom bi fegal na leen ayu bis booba wa laqaahum nadratan wa surura yàlla dajeeg ñoom naatal seeni xar kanam bégal ko moom la naan taarifu fi wujuhihim nadrata naim soo xoolee seen xar kanam yi rek da ngay xam ne ñii ñi ngi ci xéwal mu ne wa jasaahum bi ma sabaru yàlla fay na leen coono ba ñu doon muñ jannatan wa xarira muttakiina fiha ala al araik nee nañu soonu ca canapé ca biir aljanna laa yarawna fiha shamsan buñ gis jant wala zamhariran buñ gis sedd maanaam aljanna tàngaay amu fa seddaay amu fa wa daaniyatan alayhim zilaaluha wa zullilat qutuufuha tadlila nee na kere ya jege lool meññet mi ñu tàggatal leen ko ba booy laal rek muy watt wa yutaafu alayhim bi aaniyatin min fidda wa akwaabin kaanat xawaarira nee na xale ya di leen wër di servi kaas yoo xam ne wurus lañ ko defaree ak xaalis wa yusqawna fiha ka'san kaana mizaajuha zanjabila nee na ñu leen fa jox naan yoo xam ne zanjabil san jabil lañ ko defare te mooy junjeer junjeer la ñuy defare naan googa aynan fiha tusamma salsabila suñu borom tabaraka wa taala wax nag nañuy yóbboo waa aljanna aljanna waxoon na ni ñuy yóbboo waa safara mu ne wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara dañuy jiital dañuy escorté xam nga ni ñuy escorté ni ñuy jiitale ñu ñu jàpp di leen yóbbu kaso xam nga ñoom escorte lañ am waaye nag escorte boobu bokkul ak escorte bi président bi am bu jëmee palais bokkule wuñu ne ka jëm kaso ka jëm palais ñoom ñëpp escorte lañ am mais bokkuñu escorte mu ne wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara atta ida jaauha suñu dikkee wa futihat abwaabuha xam nga fee moom daal ne atta ida jaauha futihat abwaabuha waa safara dañuy ñëw ba egsi ñu doog leen a bunt bi xam nga loolu ak ragloo ngi ci nga ñëw ba taxaw ci bunt bi ngay tiit naan waaw lu ne ci biir ñuy kër këri di ubbi gaa yi jëli caabi yi di kër këri di ubbi gaa yi ku ñuy dugal kaso da nga ko gis gaa yi indi ba taxaw xaaral jëli da boo fekkoon da ko daan sax lu fi ne ñu jekki-jekki ne këccit nga xool amaa waa aljana nag ñoom bala ñoo egg si ubbi nañ bunt yi bu yàgg parce que kenn bu leen fa tardel mele waa ji nga xam ne patron la ba am këram bu rafet jël benn gardien boobu def ci buntu kër bi kooku su séenee oto bi ñëw rek day ubbi bunt bi la oto bi taxaw ci bunt bi xam nga ñeme woon ba patron bi ñëw mu naa ko xaaral ma bi taxaw ci bunt bi ak oto bi day ak di di relante mu ma jëli caabi déedéet moo tax boo tax bu dugal bi ne woo futihat ubbi nañ bunt yi dañuy jàll rek malaaka yi di sali naan salaamun aleykum tegtoom fadxuluha xaalidin xam nga ñeema malaaka yi dañ leen doon laaj daal li woo xanaa yéen ab yonente ñëwul woon ci yéen waar leen lu ngeen def ba nar a dugg safara ni ñii nag malaaka yi dañuy lapp ci bunt bi rek taxaw naan salaamun salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidi yéen day nit ñu tey ngeen ñu baax ngeen àjjanaa nga dugg leen te duutu leen génn suñu duggee ñu ne alhamdulillahi allati sadaqana waada noo ngi sant yàlla mi nga xam ne li mu digoon def na ko wa awrasana al arda natabawwa'u min al jannati haysu nasha donnloo nanu aljana aljana fa nu neex toog fa ni'ma ajrul aamili mu ne wa taral malaikata xaafina min xawli al arsh yusabbihuna bi hamdi rabbihim soo duggee aljana nee na nga gis malaaka yi nag ñuy wër aras yu wër aras di sabbaal suñu borom tabaraka wa taala wa xudiya baynahum bil xaq nee na foofa nag atte nañ mbir mi wa qiila alhamdulillahi rabbil alamin waa aljana daal di sant suñu borom tabaraka wa taala ci kër googu mu leen dugal yàlla nu fa borom bi tabaraka wa taala dugal kon nag mbokk yi e, ñaari kër yooyu li ci ñëw ci alquran bari na lool ndax suñu borom tabaraka wa taala bëggul dara nekk ci kumpa ci kenn bëggul dara nekk ci kumpa ci kenn aljana dan la wax la fa ne ba nga xemmem ko xam ne lu jar ñu koy jënd ci àdduna néew fi looy wut ci àdduna rek ba mu nar laa xaj aljanna mëtul sax zéro virgule yaa xam loo cee teg pour cent ci xéewalu aljana kooku waaw ndax nee na maa indakum yan fat te wa maa indallahi baax yéen li nekk fi yéen day jeex aljana adduna loo fi am lu mu bari bari bari bari day jeex te la nekk fa yàlla nag moom du jeex safara itam lu ñu la mën a koo ci adduna wala nga ragal ko ba tax nga bëgg a mooy yàlla jëru ko ndax mbugal ma borom bi tabaraka wa taala koo doomu aadama mënta mbugal mbugal mu ni mel moo tax jullit kenn mënu koo jullit dëgg dëgg dëgg bu ngëm yàlla am dëgër kenn mënu koo jënd ndax bu dee loo koy jëg loo koy proposé li ko yàlla proposé amoo ko ah prix bi ko yàlla fay kenn mënu ko ko fay inna allaha astara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ki naa la kaay ma jox la alal kaay ma jox la place kaay ma may la jabar yooyu yëpp bu fekkente ne moom la bëgg a jëndee sa diine boo jaayee sa diine ci loolu fekkoon nga luy jar milliard nga dem jaayee ko téeméer kon ndax yàlla lim la fayoon ci sa diine ji muy aljanna benn waaye fay la ci alal joo xam ne lee mu jeex wala place boo xam ne lee ñu dàq la wala jabar joo xam ne lee nga faatu ba ko fi wala mu tas loola la ko jëndee ko bu dee xeetu mbugal la itam ku naan dama lay tëj kasoog la benn borom xam-xam waxoon rek ne moom lu ngeen ma man a def rek da ngeen maa dimbali mu ne bu ngeen ma tëjee kaso loolu xalwa la may ngeen ma xalwa may ngeen ma jot léegi ma mën a jaamu yàlla mën a jàng ndax soxlay àdduna yi dox ngeen sama diggante ak moom kenn du ne lu tax jaalati wu ma kenn du ne lu tax ñëwul sama xew man maa ngi kaso waaw kon loolu xeewal la defal ngeen ma xeewal man génn naa ci soxlay àdduna yi bu ngeen ma dóoree ci biir bi yéen a may setal ci su ngeen ma mbugalee ci kaso bi da ngeen may setal ci ay bàkkaar bu ngeen ma rayee nag ma am shahada waaw bu ngeen ma exilé nag damaa gàddaay kon gàddaay na waaw kon ngeen <laughs> jëlee ci laa nekk kon waaw léegi lu ngeen ma mënal yooyu rek lañ la mënal benn ñu la génn la mu ne lool gàddaay la nee bu ñu ko tëjee nee na mi ngi ci xalwa nee na bu ñu ko dee dóor nee na ñu ngi koy setal ci bàkkaar nee na bu ñu ko reyee nag am na shahada martyr la kon julit moom amul fenn fu bu gëm yàlla am dëgëree loo ko def rek yaa ngi koy dimbali moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu xayr mu ne man daal waaru naa ci mbirum jullit lépp ma baax in ataabahu sarraa fa shakar fa kaana xayrun lahu nee na su amee mbégte sant muy aw yiw ci moom wa in astaabatahu darraa fa sabar fa kaana xayrun lahu su ko musiba dalee mu muñ fa kaana xayrun lahu muy aw yiw ci moom kon jullit kenn mënu koo poñe ci fenn ba nga ko gënee sonal yóbbu ko ca kaso ba bu dee ko xam yàlla dëgg am diine yow may nga ko espace jàng alquran jaamu yàlla tudd yàlla toujours naa koy wax mbokk yi ci kasam soo fa demee léeg-léeg dina wax ne doomu aadama bi ñaari compte la am compte addunaam ak compte alaxiram compte addunaam nag léeg-léeg wersi ci dara dox digganteem ak duutu mën a wersi sax ci compte alaxiram yéen nag tëj nañ seen compte adduna yéen a ngi fi toog génnatu leen mënu leen a wersi dara ci seen compte adduna kon feesal leen seen compte alaxiram ah gars yi di wersi ci seen compte adduna nañ leen cee rawee ña ngay liggéey di am xaalis yéen it jaamu yàlla raw leen leen ci tuyaaba waaw ña nga leen di raw ci xaalis ña nga ca martabay coowaloo yéen raw leen leen fii ci jaamu yàlla waaye soo toogee fii nag sa compte alaxira sa compte adduna doxatul ndax jaayatoo jëndatoo sa compte alaxira yi doxul nag kon kàtt nga kon doomu aadama bu gëm yàlla dëgg dëgg dëgg léppam yi yàlla na yàlla tabal aljanna te musal nu ci safara te saxal nu ci ak njub yoonu aljanna nag moom niñ ko xamee mooy wéetal borom bi tabaraka wa taala ak jaamu ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu mooy yoon bi nga xam ne ku ci tënku ba dajeeg suñu borom tabaraka wa taala da ngay tabbi aljanna ëllëg yàlla na ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إن أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات سيئة ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهم الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين